asalaamaaleykum mbokki Sendou maa ngi leen di nuyu maa ngi am mbégte ñëw fii ci yéen déglu seeni soxla ak seeni bëgg-bëgg nii may waxee di yëkkati baat bi soxna si munta wax ndax kamiyon bi war a indi sonorisation bi munta jaar ci yoon bi kon nag yéen déjà jàpp naa ne li ngeen war a njëkk a bëgg mooy li leen di relier à la route nationale. bu ñu yàlla tegee ci bopp dana leen relier à la route ginaaw ginnaaw loolu xam nañ ne problème yi jeunes yi am yi ci bari parce que fii secteur u pêche moo fi ëpp solo. li ngeen di dund moom la waa jeunes yi bari ñi doon dund te ñu bari dem nañ ci mbëkk mi kon. jàpp nañu ne pour régler problème bi faw ñu fexe ba jën amaat fii ci yéen port de pêche boo xamee ne bii sendu ak yéen ñoo koy séq ci lac Tod bi nekk fii su ngeen ko amee di ngeen mën a avec le por de pêche yëngatu ci lépp loo xam ne lii dana mën a régler problème mu jën yi problème mu bi problème mu transformation bi même pourquoi pas problème mu usine dafay am euh, njeexital ci souveraineté alimentaire bi nga xam ne bii moom la ñuy wut. mënuñu am souveraineté alimentaire bu fekkente ne amuñ jën yu doy te jën yi tant que defuñ ay pexe toowaat géej gi jën yi mënuñoo delsi te bu delsi wut du ngeen bi des. moo tax ñu jël engagement traversé yëpp xamoon nañ ne yoon bii neexul xamoon nañ ne métti na waaye ba nga bëggoon a ñëw ba fii déglu leen ñoo ngi gërëm mbooleem militant yi nekk fii ak responsable yi di leen wax nag ñu waajal élection yi li ci des bariwul ku ci wutoon sa carte nga jëli ko bes bés ba nga daal di dem voter tranquillement voter gis ngeen suñu bulletin nañu nañu dem élection ci jàmm voté ci jàmm parce que loolu mooy li am njëriñ réew mi kenn mënu ko yore bu fekkee jàmm amul ci réew mi kon nañ ci jiital ci loolu la paix d'abord loolu mooy message bi moo leen bëggoon a wax mu tax ma jóge fu sori jaar ci yoonu métti wi ñëw ba fii ci yéen maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm asalaam